jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne démb dafa nekkoon journée boo xamante ne journée bu spéciale la ci wàllu làmb moo nekkoon le 26 juin 2022 fële ca stade Jom Iba Mar ndeysaan ñu teg mise bi cinq millions xale bi di Serigne Ndiaye 2 moo ko jël ci diggante même ak Imine François Gomis mu bari lu baree bare loo xamante ne war nañ ci waxtaan ci wàllu làmb lu bari loo xamante ni daawuñu ko gis ci li traditionnel léegi ñu ngi koy gis mbokk yi ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi champion maa ngi lay nuyu baax di la siyaar di la féliciter ci ndam bi. waaw merci maa lay fay bu baax di la siyaar di gëstu waa ci waay xam nga di nuyu waa di ngi siyaan yëpp mbokk internet yëpp xam nga di nuyu suma écurie waa écurie Fass xam nga suma Abass Ndoye suma Tafa Gueye suma entraîneur xam nga Père Gueye Camara Ibrahima Mbaye xam nga su papa Amadou Kër Diop di ko mu yàgg bi la tant ak wér. Mm. xam bu baax. Mm. di nuyu suma coach bi ma entraîné ko su ma ni Kanté Bodian Wakaam di nuyu waa Wakaam yëpp. Mm. ñoom soppay suma gars yi ma àndal bu baax. Bara Zal Ousseynou Mour Lamine Mam Samba. Obala xam nga Kabandoski. di nuyu suma waajur bu baax a baax nag di nuyu waa Medina gi ma juddoo Yaraafu maa ngi di bu baax. Ndiakhate Séeréer Ndiakhate Escale Ndiakhate Bari ak Ndiakhate Socé ak soixante nga waa Kër Gala yi waa Bil xam nga hmm. hmm. dinañ ñëw ci làmb ji mais balaa ñuy dugg ci làmb ji bi nga duggee ci stade bi gis ndaanaan yëpp dugg si ba Franc nga xamante ni gëj nañ ko gis ci làmb sax. ci li traditionnel démb moom mu dugg si moment boobu bi nga dugg see ban yëg-yëg nga am. yëg moom mooy yëg contact ak mbégte rek moom contact ak mbégte maanaam fu ay say nawle mbër wala say nawle góor yàlla fu ñu nekk. waaw bu la suñu moom jaglelee benn affaire rek ci nekk fa ñëpp ñu bokk li ñuy xëccoo bu su moom jaglelee loolu sant yàlla la. waaw moo tax loolu day nekk lu ma neex daal vraiment. Moussa mu duggee lamb lamb gi neex bëri poids lourd damay kontaan damay sawar. waaw damay wane jom wane fulla wane fayda xam nga aussi moom def li daal. nga bëree ci sa première combat bi nga xamante ne jur na ay polémique mooy sa diggante ak Libidor. bëri ngeen yéen ñaar ci biir action mu mel ni ku taxaw bàyyeeku nga pakete ko daan ko. mu mel ni dafa dafa dafa weddi jël boobu wala neexu ko ci ndi arbitre yi doxalee sa diggante ak Libidor lan lan moo ci xew. loolu dara xew dara xew si moom champion la Libidor suñu grand la champion la boo ñu bëree xëy na ñu ay yu ndaw lañu bëriwuñu xam nga. tey euh, image yu bëri yoo xam ne war nañ koy moytu parce que ñun tey tey bi tey ay favori lañ donc suñu image à chaque fois dafa rafet mais a xale war parce que man mi ko daan tey yoon la mu daan ko. cuune daanu ko yaafus daanu ko. donc tey comportement bi mu ngi wax ak bi nga daw paquet ko. arbitre lu ma leer na avant muy suuf avant muy suuf daan tilo moo leen takkale moo leen hmm. donc boo déggee sifflet taxawal soo déggee sifflet bëri leen mais boo bi sifflet wul nag man li mu règlement rek laa def ah le reste nag moom man mooy loolu ba bi sifflet na ñu bëri mu taxaw di signal def abit ma daan ko continuer sama yoon abit am victoire hmm. nga continuer ñu jékki-jékki tirage sa diggante a Doudou Sané ngeen war a daje hmm. te yéen ñaar saa yu ngeen dajee stade bi dañuy bëgg seen combat. mais ci biir combat bi dem na ba day dépasser làmb yéen ñaar seen diggante lan la parce que saa yu ma la laajee nga ne ma non du dara Doudou Sané saa yu ma du dara mais problème am na seen diggante. non non ma ku ma xam ku ma xam depuis sama ma dëkk fu ma juddoo fi ma màggee man ko waxee je suis un sportif kenn musuma musuma ñàkk si làmb ba wane si benn comportement buñ ne kii kat comportement bu ñàkk teggil amul. arbitre day juum sama combat wallahi du ma accuse arbitre dara sama gars yi wax ma calmer gars yi ànd ñoom génn dem si commune table bi ne leen maa ngi jégalu. de ma yoon béy noonu lay def recours sama carrière sama combat Ebou Ndiaye te gars yi ñu si dóor def recours te bañ ko joxee victoire dama félicité ànd samay gars yi génn dem. parce que sport la moom la xëy na lii problème am loolu moom la lii problème am xëy na loolu moom la mais man Serigne a personne man suis à l'aise non bi ngeen nekkee ci digg géew bi yéen ñaar bëre bi sax dépassé na bëre parce que maa ngi gis ay benn moment ngeen di dóorante sax def ngeen ko fa. ngàdd na la fa nga jéem a riposte ngeen kii après dem nañ ba mujj gi dañu mujj a siffler sax téye combat bi parce que stade bi xeer yi di jóge fu nekk ak loolu te yéen ñaar yu yoo xam ne ay exemple ngeen ci làmb. non xam xam exemple xam exemple mooy lan tey ñun ñëpp ñoo bokk objectif tey moom boo déggee bu wax histoire am danaan da jàng bàyyi jàng pour dimbali ay fayam ak waajuram moo tax mu bay jàng. bu fekkee da nga mental boobu doxee loolu dangay xaar na yow tamit seen loolu la ñuy bëreel dañuy jug pour dimbali seen waay yow tamit nga bañ leen ko xañ ci ay affaire de message ñu baal ma tuuti si kàddu gi. fii ku nekk tey am nañ am nañ ku nekk ñaari jikko la yore. n'est-ce mais man à chaque fois su ma bëggee def dara rek damay xaar ne kat kii kat su ma ko defee lii ay waajuram. laay xañ. gannaaw yàlla yonte bi. man a chaque fois damay réservé sportivement lay bëree moom. démb sax na ma xeer démb de fois. ay xeer yu mag yoo xam ne bu comprendre te la loolu affaire maam bu ñu bu ñu wootee bu ñu wootee violence suñu bureau ne xaju si bu fekkoon benn commande yi bëri par at sax mais mais ren ñaata la bëri te jeexagul di bëri di bëri di bëri donc war mun naa chaque jour maam affaire da nga ci cadre sport bu nga def ci cadre du sport. yow ma bëgg wax li am yëpp. Doudou Sané moo ko provoqué yow defoo daal non non si moom moo provoqué. moo provoqué parce que parce que tey moom moo yor comportement yoo xam te nii man comprendre ma quoi. non mais comportement weesul seen dimanche bi weesu am na combat boo xam ne yéen ñaara final nga jàpp ci karaw bopp bi paquete ko daan ko. démb moo tax jël na jël décision nee na arbitre yi boo ko jàppee wala nga laal karaw boppam dina la dóor. kon est-ce que du loolu moo moo gën a. non loolu moom loolu ak loolu ak lii am comme yàlla na bokkul. parce que boo seetee moom système bi muy bëree tey moom day moom day dóor ay mbër gañ na fi Cheikh Tidiane te gañ bu Franc Ganaar bu Franck Aldir boobu ne ni àdduna xoolu kenn neexu si barki alxuraan pour quelle raison loolu c'était toog ay weer bëriwul waxuma pour jaxase waxuma pour dara mais nañu war a bëri ñu ne sportivement war a bëree nit ki ba bëri moom. bul jël décision gaañ ko amul sens. parce que ngay gaañ noonu su de famille la. ki ngay gaañ noonu tey bëri bi la yaakaar gannaaw yàlla ak yonent bi ci lay dundal ay waajur dundal si ay raxam dundal si ay magam comme ni nga koy defee. est-ce que nga foog nii di am mental boo xam ne carrément lii compétition la bu bu làmb ji moom kese bu nekkoon si làmb ji compétition du am. foog ma ñëw gars yi ponkali ji mën dem mais bu bu bu moom tunu bu bëri bu bindoo. kenn du bëri. mais yow li nga dajeeg Doudou Sané dajee goo ko benn mbër ci li traditionnel bi wala. non na koo dajee comme nombre bi nga dajeeg Doudou Sané. non bëri naa si xëy na sama diggante moom mi ngi nekkee coow di gauche ak moom lu mu dugal si mentalu gars yi. voilà <laughs> mais xaw ma. xaw lu jot day yomb a jël temps rek. bët noir am relax non bët noir moom non bët noir wala su dox su ma nekk la li ma wax rek man dama ñëw pour compétir dama ñëw pour job. bu fekkoon doo bët noir am lan moo tax mu wër la ndomba nga génn ci wër ndomba bi woowaat ko ne ko kaay ci digg géew loolu loolu bëri la loolu moo ñu jagleel bëri macha allah ak ni ma gis suñu borom déw suñu borom moo doon Serigne Ndiaye jël làmb ji loolu kese la saa yu borom dogalee ne du sant leen Serigne Ndiaye ala kulli àll day nekk <laughs> mais foog nga am mental am patience am gëm-gëm xaar loolu mu ñëw ak discipline surtout parce que sportif nga. Hmm. sport discipline da ci am solo. sport fort mentalement da ci am solo. yaa ngi du xabar xabar nii di yuuxu di gauche non non da ngay ànd ak dal ànd ak sang froid xam ne tu es un ñàkk gagné wala nga mas nii moo ci bu ci ñëw rek santal nga xool li lay xaj suba nga dem liggéey loolu renforce loolu li may ndam li moo la may ndam nga sotti noonu lay com noonu lay comparé noonu lay dundee. Mm-hmm. waaw mais mooy loolu quoi. nga daan Doudou Sané nga génnee ko par point sax laay parce que daanoo ko wëlmin gang daa génnee nga ko par point ñu jox la victoire nga final. final bi nag presque stade bi yëpp bokkoon na ci lu gën a indi stade bi. supporters yi wala amateur lamb yi bokk na leen gënoon indi stade bi mooy diggante Emine François Gomis ak Serigne Ndiaye est-ce que Serigne Ndiaye yeewu na wala Franc daf koy delloo fa mu ko delloo woon ñu bari nag ci làmb ji waxoon nañ ni Franc sa bête noire la foo nekk di lëmbe bu ñëwee dalay dalay jaarale yoon. avant ngeen bëre yéen ñaar gëmoon nga loolu ak ci mikaay bi lan lañ la doon wax ban conseil lañ la jox parce que yaa ngi doon bëre Franc bëre nga koo xamante ne saa yu ngeen dajee mu metti alors Franc moom man dama ko nuyu ko encouragé ko maam sant ko gërëm ko ci discipline am surtout. ci hmm. comportement fair play am. sportif waaw maanaam ci mental am. Hmm. est-ce que ma wax. Hmm. saa bu ñu bëree pare mooy fekk ba si mucc mukaay c'est pas donné à qui. loolu yombul. loolu mooy nawle loolu mooy sport parce que ñooy mayante xaalis. man dama ko respecté mosuma wax suma lu ñaaw. mosoo ko dégg micro mu wax ci kenn du ñaaw mosoo gis mu indi problème ci làmb mosoo gis mu benn bu ci làmb yar teg lay def wane fulla fayda lu moom moo xam ne li la ma gis yàlla suñu moom seddee mu dem ñibbi mais Franc Serigne Ndiaye nag ay làmb la yoo xam te ne ay làmb yu neex la. bi ngeen di bëre avant ngeen di bëre yéen ñaar parce que moment bi ngay bi nga yaag Doudou Sané avant ngay am ndam yéen a ngi bëre mais jékki-jékki na daw njuug ñëw ba sa cimeekaay tàllal loxo wan na gaawal nga ñëw moment boobu mentalement amul lu travail ci. ah non loolu dara loolu neexal la hmm. Hmm, loolu moo travail. bu dugg ci war am Franc xalaatoo dara. non non xalaat Franc la ma xale la ay xale lañ. Franc deux ans ma nga dewoon trois ans mu nekk ci mbapat nekk ci arène nekk champion nekk jàmbaar boolewul dara ak wax man tamit noonu. donc bu ñu tamit yoon la fu la fay dafay feeñ rek. mais démb bëri woo sa bëre bopp Serigne Ndiaye démb ñu bëri nee nañ conseil nga bëri conseil nga bëree parce que dañu la conseillé ne la bëree léegi nii franc ni nga bëree franc démb façon bëre bi nga indi ñu bëri xamuñu woon ni Serigne Ndiaye mën na peser plus de cent et quelques kilos bu rëppee day jug day bëre di indi tactique façon bëre bi nga indi démb dafa jaaxal ñu bëri ci wàllu. am ah, na loolu du démb kese. non démb yaag franc. non loolu dem kese man boo xoolee man sama combat yëpp man néew na ma dugg làmb génn ni benn làmb génn si ñaari par point néew na ma ku si nekk damay jàpp daal la. dégg nga Franc bu ñu dajee force day neex force dañuy bëri parce que champion la. léegi décortiquer ma ni nga bëree Franc ba daan ko. arbitre sifflé na nga féete càmmoñ Franc féete nan ngeen bëre rëpp baak jug baa accompagne baak ba ni combat bi jeex wóor mënut wax dara man bëri naa pare pare naa si de xamul ni nga bëree c'est-à-dire seetaan ñu bari ci amateur yi moom nee nañ da ko tandu kele boobu moom jàpp loxo la tandu comme ni booy di def des fois ñuy kii rek tandu <laughs> kon doo ko tandu <laughs> kon doo ko tandu a gën di la masa bu ko bëri ni nga ko hmm? bëri donc maa bëri da nga bëri si fula fayda yaa mel ne fula fayda waaw mun nga ma expliquer ni ngeen def kele yi nu mu amee noo génnee noo teggee kele bi non bëril de bëril la yàlla xam na ne bëri boobu la damay nalaw amu temps bi. seetaan ma hmm. xanaa. jël bi jël bi nga daan Franc parce que dama xamul da nga jàpp ci tànk bi xëcc ko mu ñëw nga xar ko wala da jàpp ci ngemb bi moment bi nga koy xar muy jóg action bi nu mu demee. non bàyyi jël bi da jël nga nga téye ko ne champion non jël bi ñu bari ci amateuru làmb yi dañu bëgg a xam. lan moo waral jël bu rëy boobu. waaw xam nga yow Franc la macha allah Franc bër kaamil la. Mhm. Franc dañuy daanante mën a moom champion la. yaa ngi comprendre mhm. mbër la. démb suñu borom moo dogoon ne Serigne Ndiaye mooy am ndaw ci kaw Franc su moom ko noonu. yaa ngi comprendre di ko mos a bu baax on tourne la passe compétition yi xaajul jeexul. man dama toog fi naan nii ak nii yàlla may na ndox ci kaw Franc. Mm. ma koy mosaw bu baax a baax baax. ñaata yoon ngeen mos a daje yéen fan de bëri na de. mu daal la ñaata yoon wax dëgg yàlla bu ma jiital nag jiital la ma de. ba nii waaw wax dëgg yàlla moom. wax dëgg la ko daan démb mënul effacer lépp. non effacer non ñuy xale dañuy compétir di compétir dañuy compétir Franc dañuy daje daje daje daje daje donc lu ñaaw xaju fi quoi ay waxante yi duggoo ci xaju fi mm. parce que compétition bi xaaju jeexul. te bu dëgg yàlla loo wax di wax di wax di xam ne France champion la te ku am discipline sa mbër la quoi. te man mbër bu yàlla boo amee discipline rek damay mal ko ak soi. wax dëgg lu ñaan ko macha allah ci amateur yi ñu bari démb waxoon nañ ni yéen ñaar yéenay finaalu ñu baree bari man laaj naa ñu bari ci tribune bi ñu ne Franc ak Serigne Ndiaye ñooy finaalu sa dugg si démb stade yaakaaroon nga ni mën a mën ngaa jël compétition yi ak ponkal yi fa nekkoon. waaw déggoo ma wax naa suñu njëlbeen ma nee naa la carrément man damay sawar dugg ci làmb gis ay ponkal parce que xam ne fii su bu jël ko rek mooy kenn doon ak cam. loo loo loo contre contre contre contre yoo kii gi jël kat non macha allah teg na ba kanam bu jël làmb ji quoi. Hmm. vraiment.